mujjee ko ci xalifa Sall sànq moo nga doon junju euh, ba nga waxee ay waxu supp ba ñu ñëwee ci suppression euh, des villes euh, ndax ñu bëri jàpp nañ ne li tax président Macky Sall bëgg supprimer ville yooya mooy mais Dakar bi nga xam ne daanaka mënu ko gañe te amul mbër bi mu fa teg moo tamit naa mas noonu gi rek tasaal yëpp benn yoon xalifa Sall jamono jii gis nga ne ma ngay dajaloo mi ngi mi ngi mi ngi war di rencontrer ñi nekk ñi des ci opposition bi mais ma li ma jaaxal mooy dama ko gisul ba léegi ma dem dajaloo Pape Diop est-ce que dafa foog ne Pape Diop euh, nekkul ci opposition bi Macky Sall la gën a jege ak i ak ak tamit yow noo noo gisee démarche am moom Khalifa. xam nga Khalifa Sall dafa amul ngor. ah waaw. ndax lan. ñàkk ngor mënul paase yow ñu tëj la ci kaso bi. waaw. man mii di wax yow nekk vice président commission de loi Serigne Cheikh Mbacke nekk président groupe bi. waaw Khalifa Sall amul député assemblée nationale. waaw. bi ñu indi maanaam pour dindi mbalaanum kiraan kan moo ko doon jàppale ñun ñoo ko doon jàppale. waaw ko xeexal. ñoo ko doon défendre. waaw bi mu génnee si kaso bi ndax tax ñu mu woo ñu téléphone wala mu seet suñu amul. Hmm. Abdoulaye Wade mi suñu kilifa nangu ko seeti nangu seet président Pape Diop ba pare Khalifa Sall moo tax sénégalais yi coono bi ñuy dund moom moo tax ñu koy dund. coono ban. jafe-jafe yooyu am nii affaire dictateur yi ndax Khalifa Sall bu fekkoon testoon coalition 2017 bi nga xamante ni tey jii maam ñu ñëpp ñoo si ana muy coalition Wattu Sénégal bi yaa ngi doon dégg coalition boobu noonu dañoo dajewoo ñu ñëpp ba nga xam ne ñu ngi war dem pour déposer ji Khalifa Sall moo tas coalition bi ndax bañ Abdoulaye Wade jiite ko tey bu ñu gañe woon coalition boobu ñekk gañe gañe assemblée Karim Wade day ñibbi si kon Khalifa kenn ko tëj si kaso bi mais lànk la def kooku nag nan la la mën a maanaam worre toroxal la 2017 bëgg programme à 2021 wala 2022 wala 2024 ngay ànd ak moom. Mm-hmm. même bu Pape Diop doon nekk si coalition Khalifa Sall man du ma dem. yow Khalifa Sall lu ma neexu la. naqaru ma mais day day wor te amul kóllëre loolu moo ma naqar si xalifa day wor te amul kóllëre. mais ñi muy rencontré ñi la pour pour mel ne ku bëgg ñi muy rencontré ñëpp. Mm. kenn ku si mën a gaje fa nga dëkk ku du Sonko amul te Sonko du ànd ki du ànd Khalifa. ndax la. ba njëriñ lu koy amal. ba lu koy amal Sonko mën naa gañe si yeneen wii li bu si coalition ak ñeneen ñi mën na faa am dara ak ñun mais kooku dana ko jaawale dof jënd ko euh, xalif mi nga xamante mi ànd ak Idriss Seck sax jëlu mënta am mënta am ab député Assemblée nationale kooku du am kon jàpp naa Sonko koy ko ñeneen ñi nag ay yoo xamante nit te la mais amuñu mooy ku mel ni man di gañe fa mu dëkk mais nga gañe fa mu dëkk foofu la jeexale émission bi euh, waxoon nga suñu dernière émission que nii euh, samp nga sa ndënd ci mairie Touba ak conseil départemental ba ba tey maa ngi koy dëggal maire bu Touba bi candidat laa si doon waxtaan naa si xalif général de Mouride nee na àgg si. ndax ka fa nekk liggéeyul Touba liggéeyul askan boppam la fa nekkal ndax mu ñu la jox 40 milliards budget depuis ban la falee ba tey mënoo wan benn résultat yu dul ay résultat pakaseen loo fa pakaseen def daal ngay wane résultat mais yow loo fa def mënul am ba sëriñ bi jël Touba si kanam dénk ko benn liggéey boo xam maire bee ko waroon liggéey kon kooku yaakaar naa ne dañ ko faa a jëlee nu mu gën a gaawe mm-hmm. beneen bi candidat la conseil département Mbacké incha allah moo xam ma ànd ak grand coalition moo xam ma dem sama bopp ndax léegi élection yi ñëw nii par personne la ñuy tànn mooy ki bëgg nekk ci kaw kooku la ñuy jël tànn ko te Touba bu ma leen présenté woo waa APR présenté ka ñuy présenté. Mhm. yaakaar naa ne waa Touba daan ñu mu woteel bàyyi kooku ndax kooku amul njëriñ askan wi. <laughs> Cheikh Ba Baara Mbacke Cheikh Mbacke Baara Dolli Cheikh Abdou. Euh, Baara Doli nekk vice président commission loi nekk coordonnateur bokk gis-gis. waaw jeex na xam sa ba neex. <laughs> ah waaw moo xam nga ko man moom dama dama damay maanaam nu mu tuddati maanaam anniversaire. waaw chef liste la baykat laa. Ah. homme d'affaires laa. la laa. Ah. la ah. bokk gis gi laa politicien laa lépp laa daal. bëskat nga tamit. waaw mais xam nga loolu yàlla moo ko def xam nga xorom la boo xamante ni maanaam bu ma nekkul si cin cin bu du saf xorom man maa yore Sénégal man maa neexal assemblée. yaa borom koppati bu rafet ba. waaw sa jeex na. ñu ñu bàyyi la Mbàkke waaw loolu yaa borom sañ-sañ. loolu yàlla ko def borom ree ju neex yi sama sooy jeex na Mbacke Balla ñu bàyyi la nga tàggatoo. en tout cas maa ngi lay maa ngi lay sant bu baax na wax dëgg yàlla mm. sama jigéen nga. sama xarit nga aussi. émission bi mooy deuxième fois. te mm. xam naa ni comme ni ñu ko waxee woon rek. xam ne incha allah dañu gën di ñëw si kër kër suñu kër la ndax jigéen nga boo xamante bu man góor nga mm-hmm. nitu dëgg nga aussi loolu laa gëm si yow mm-hmm. nitu principe nga aussi tamit moom mm-hmm. la jàmm di ñaanal aussi tamit borom kër gi mu yuusu di sama xarit di ko féliciter encore si taxawaayam ndax jàpp naa ni situation bi ni mu toll mu jël ay nit yoo xamante ni daanaka mën na junni nit ñooy topp seen ginnaaw di leen fay par weer kooku ak réew mi ni mu mettee te dimbale wuñ ko kooku tamit dañoo war a jàppale ñu moom ak ñeneen ñi mel na ñoom yor ay organe la presse li nga xam moom nañu jox RTS di ko wote si bis bi tey waroon nañu xool ñi nga xamante tey mooy euh, ñen ñii pour ñu jàppal leen mhm. te ku ne xam na ni fi mu toll nii wote nan benn projet loi boo xamante ni statut des artistes la tudd mhm. artistes yi maanaam jox na leen benn statut mhm. léegi nag il faut que ñu xool artistes yooyu ñan la ñuy doon ndax wote nañ ko Assemblée nationale barki démb léegi nag yooyu yëpp après bu amee daal ñun man lu du sant gërëm ñaanal aussi tamit xalif général mu yàgg fi te wér di sama baay di sama xaadim mi nga xamante sëñ Tuubaa la fi nekkal di ñaan sama waaju sëñ Baara Doli ak sama waaju soxna bu sa ngom di ñaan waa Sénégal yëpp ci am Sénégal si kanam Sénégal pour tous Sénégal pour tous je vous remercie <laughs> merci beaucoup Cheikh Abdou Mbacké Baara Doli sama xarit nga nag euh, ma am ci fierté bu baax wax ko ndax euh, ni nga ko waxee dëgg la euh, yëf moom leader moom da nga koy wane fu ne te assemblée bay assemblée nationale bi bu ko nit ñi di seetaan yaa tax mhm. ndax loolu da dul am solo loo xam ne bu weesoo ko euh, sa barke maam euh, loo jëmbatal sa bopp la ndax bu doon da nga ñëw foofu rek dafa def yëfu sëriñ ak na nekk ci ginnaaw nit ñi maa tax daal maa tax ren waaw ba fuuta am tëli waaw ndax tëli jataal waaw jataar bàyyi alwa macha allah maa tax mu am te mois de janvier dañ ko tàmbali macha allah kon anniversaire la rek waaw ah, anniversaire la maay Sénégal <laughs> <laughs> yaa Sénégal Sénégal ca kanam muy noonu <laughs> donc Mbacké Balla ñu lay gërëm dee sant bu baax a baax émission bi nag moom nee naa yow actionnaire nga ci euh, euh, ndax su ma la bëggoon dàq sax yéen ak ñoo bañ na déedéet duñu da oh. am Mbacké nag euh, ëpp naa sax ay wax yow yow xorom nga ci cin li waaye xorom nga tamit ci biir émission bi kon ñu am mbégte bu baax a baax di la dalal saa la soobee rek nga ñëw ci émission bi di la gërëm bu baax nag ci waxtaan qualité waxtaan wi ak ni nga amee sincère sincérité euh, ci wax exactement li nga xam ne euh, mooy sa yëg-yëg ndax Sénégal yi defe naa bu ñu la fonkee looloo tax ndax dañ togg dañ toll réew moo xam ci jamono joo xam ne Sénégal yi dañu bëgg ku leen di wax dëgg mm-hmm. yow na nga ñemee wax leen dëgg euh, moo tax ñu teg la place bi ñu la teg di la ñaanal yàlla 2020 bi ni nga ko dëbbee ba mu mokk 2021 mm-hmm. bi moom mokk ru ma nga xam ne tamit bu gën a sew sax mm-hmm. du ko mën a tamit loolu lañ lay ñaanal di ñaanal nag bu baax a baax Euh, atum jàmm 2021 bi 2020 euh, mu métti woon na lool lool lool mm-hmm. lool lool lool mm-hmm. vingt diis na métti na mm-hmm. euh, donc di ñaan yàlla rek métti képp koo xam ne dund nga métti bu métti ci 2020 bi moo xam ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu koppar ci wàllu koom ak métti bi daal fu mu mun na yem rek yàlla na ko euh, euh, yàlla yamale ci 2020 2021 nag lépp doon mbégteeg teranga ak bànneex taw féex ak euh, ni ko xale yi di waxee rek happiness yàlla mun na ko yàlla ñu ko defaral di leen gërëm di leen sant ci teew bi ngeen ànd bi ngeen ànd ak suñuy ay programmes Euh, di gërëm bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñooñu laa bokkal euh, li may def muy euh, équipe bi jiital si nag Madeleine Diaw Ndeye Malle borom glam style Baye Mado ci make bi sama rakk jooju nga xam ne léeg ñu xuloo li ñu xuloo ëpp lu ñuy ànd waaye xol yee bëggante nañu moo tax du bàyyante moom. Euh, su ma ko bëggee bàyyi sax euh, mu def ay grimace ba nga xam ne duma ko duma ko mënal dara ba koy jaanal yàlla moom itamit 2021 bi rek mat leen euh, mu dégg ci nag madame mais nag madame bu am ñam monsieur bu am ñam laa ko laa di gërëm naka noonu Ibrahima Cissé ci production bi Mass maa ngi ni jàkkaarloog yow Abdoulaye sama doom jooju moo nekk ci régie bi Fatama benn yoon Moussa Sène ak daal képp koo xam ne rek yàgg nga jàpp ci bi émission di gërëm naka noonu Euh, euh, damay daw ba Italie nag gërëm Euh, sama chéri bu fa nekk euh, di Baye Seydi ak njabootam ñoom luy sama papa Mass Thioub euh, ak soxnaam Ndeela Thiam ak daal sama goro yeek sama njëkk yi ñëpp ñëpp lépp daal laa jël teg ko ci loxo Adja Mare mu sëñ Bas foofu sa yoof laa yeen jàmmalaay mu gërëmal ma ñëpp di gërëm nag bu baax sama rakk ji nga xam ne gën ñaax gis lool Amina Poté mi ngi nii moom itam moom laay jébbal kàddu gi di sama rakk nag boo xam ne sama biir xol la sax di ko ñaanal moom tamit 2021 um, bi lépp loo xam ne mëbëtam la yàlla suñu borom bi euh, defal la ko ko fay ko nag si euh, njabootam ak euh, moom ci su boppam Amina nee naa ko yaay yaa téye TFM mooy rawaanu. Futurs Médias groupe Futurs Médias Amina Poté mooy rawaan bi donc ma koy ñaanal moom jàmmam yàlla na jàmmam yàgg sa war ak ji di gërëm ñëpp di sant ñëpp et puis jox rendez-vous ben à l'année prochaine allah jërëjëf merci.